jaajëf tee jaajëf tee sama gars yi Mister Shake la depuis les États-Unis d'Amérique côte ouest lay doon gars yi ñu Petir moom la ñu tiim noonu rajo PDG gendarme yi ñoo ko tiim nii di ko dóor jaajëf euh, Adja Mbaye Mati Touré Ngok gis ngeen gendarme yi ñoo taxaw nii ñoo ko tiim di ko dóor j'espère que xaw leer nag gis nga fii moom gis gendarme yi ñoo ko jàpp Rokhaya Ndiaye jaajëf gaa ngeen baal ma nag nga tey damaa toog sax damaa sonn vraiment j'espère que son bi baax na man la Mister Shake jaajëf Adja Mbaye merci like leen gis nga gendarme ko jàpp noonu di ko dóor parce que man dem sama laay waxoon naa leen ne woon naa leen dinañu jàpp dix booy waxoon naa leen ko de jaajëf Mati Touré de consort Rokhaya jaay gars yi léegi ba la duggee da ngeen di like da ngeen di partage ñu continuer waxtaan bi est-ce que yéen a ngi may dégg yéen may dégg son bi son bi tey moom tey génn ma quoi parce que vraiment dama sonn dama doon génn en son bi sa bopp. booy bi moom la gendarme yi tiim nii xaw ma ay gendarme lañu xaw ma ay nervi lañu xaw ma lan lañu mais sonn na de son na de te waxoon naa leen ko waxoon naa leen ne dinañu ciblé jaajëf open mind tey nag dinaa dem Facebook. vraiment dama sonn mais tey moom dinaa dem Facebook gars yi open mind yow yaay Pape Malick def naa dinaa la yónnee bu soobee yàlla tey moom bu ma paree nii yi xam leen sama liggéey dafa dafa bëri ba pare ma war a wax soxna si xam nga démb am naa ku ma bëggoon envoyé xaw ma sax man xamatuma sax euh, cinquante mille mais dix personnes tey moom dinaa fexe ba yónnee au moins trois personnes parce que sama contrat su ma commencé yónnee lu ëpp dañuy yaakaar ne fraude la quoi moo tax il ma yónnee par deux par trois waaw mais bu leen bu leen ragal man yow yow moom dama lay yónnee léegi bu dee sax bu leen fàtte adresse bi nag am na ku ma doon yónnee démb xaw ma bëgg démb deful adresse am kooku Mauritanie la nekk waa gars yi gis ngeen xaaral ma indiwaatal leen ko ma indiwaatal leen euh, affaire parce que dafa gaaw trop man sax gisuma dóori maanaam dóori sax gisuma mu ngi nii dañ ko accusé ne moom bokk na ci ñu taal kër Farba Ngom est-ce que lii la man man du lii la du lii de dañ ko accusé ne dafa bokk ci ñu taal kër Farba Ngom waxoon naa leen gars yi ñu jàpp dix personnes parce que Farba Farba dafa mën a defante Farba dafa mën a defante dafa am benn booy bu tudd Beyti Fall xama Beyti Fall xama Beyti Fall moom lañ ne dafa bokk ci chef de bande yi foofu waa man sama connexion bi tey moom eh, ji kër ñi taar kër Farba dañ ko dañ ko ci jiiñ ne moom moo bokk ci commanditaire dégg naa béykat Fall boobu ci ñu gën a am fit euh, ci chef de bande yi daal la bokk pas chef de bande mais ci xool leen ko moom la ñu jàpp nii gis ngeen moom la ñu jàpp nii du ko dóor gis ngeen dóor yi muy sa man tey mais gendarme yi ñoom. waa lii moom Macky Sall moom Macky Sall léegi kii bu ñu ko dóoree ba mu dee loolu du indi problème Macky Sall mais gendarme nan ngay jàppee nit di ko dóor xoolal xoolal dóor yi mais vraiment nag Sénégal nag gars yi nag mi ngi bëgg yàqu quoi xool xool uy saman day gis ngeen xàcc yi waaw yow kii ñu ngi koy rey gars yi like leen partagé leen ma def nii ngeen gën a gis moo nekk noonu ci suuf ñu koy dóor gisoo dégg naa dafa mujj dem hôpital tey mais imagine na tey mu dee lii du taal yoof gis nga dafa mel ni am ku ko weex noonu wala ah waaye lii moom ëpp na ne Macky Sall Macky Sall mi ngi seetaan mi ngi seetaan affaire yu bëri Macky Sall nee naa leen il a perdu le contrôle il a perdu le contrôle parce que lii man nee naa leen Farba bëgguma bàkkaar mais Farba Ngom dafa mën a defante Farba Ngom dafa mën a defante kenn du taal këram. te duñu am lu mu jàpp waxoon naa leen dinañu jàpp lu ma dix booy waxoon naa leen ko démb rek waxoon naa leen waaw ne woon naa leen dinañu jàpp dix booy te booy bu ñu leen jàppee wuy sama gaañ bu ñu dóor de ñu ngi dóor de fa leerul rek xaar def ni ñu ngi dóor gis naa ko moom ñu ngi dóor de waaye kii dina dee te di gisoo dafa mel ne ay booy yu bari lañu ñu dajale noonu dégg naa baytifaat bi dañoo dañu dem ba ci këram ñu génne ko ñu jàpp ko te moom dégg naa bokkuloon ci manifestation yi loolu la Khoureychi Ba wax lii nag c'est pas normal kan moo taal kër ku taalu kër c'est vrai taalu kër jàmbur ñun d'accord bi ci c'est vrai waxuñu kenn mu dem taal kër jàmbur waaye booy def enquête booy def enquête ñu euh, euh, mu tëddati xaar leen gars yi xaar leen ma fay sama sama dafa mel ne am message booy def enquête ah nga taal booy def enquête nga jàpp nit mais li gën mooy nit ki danga ko war a laaj ndax yaa def wala defuloo mais doo jàpp nit ki ah da jàpp nit ki di ko dóor ci mbedd bi en plus li tax ñuy dóor ci mbedd bi pour tiital waa koñ bi la ñoom ñoo ko tey gis nga gis nga gis nga gis nga nii gis nga ni moom la ñuy jiital nii wuy yaay mu ngi dóor pour tiital booy mu ngi dóor mu ngi dóor pour tiital booy pour booy bañ a génnati te tey kii nga dóor bu deewee loolu mën na indi révolution lii mën na daaneel nguur mais Macky Sall il a perdu le contrôle parce que ay Farba Ngom yi dañoo am doole bëgguma bàkkaar mais Farba ñëpp xam nañ ne defante dafa mën defante kenn du taal këram te du jàpp ay booy même bu dul ñoom sax

xaritu doomam bi sàccoon deux cent cinquante millions farba moo El Capo ci lu ñu wax El Capo jàpp booy bi mais jàpp doomu ba bi kenn jàpp booy lañ jàpp nangu seen ordinateur tiital leen am nañ ci jotu yóbbu xam nga booy génn nañ kaas far ba day defante est-ce que moom dugal loxoom ci lii amuñu ay preuve mais ñu bett parce que farba mi ngi mi ngi màkk far ba dafay defante gars yi ngeen baal bu ne dafa am ngelaw Et xaw na am de El El Capo Grand Dakar la mais pour tiital population bi la pour terroriser population parce que nous ko tey ñu def ko ci digg mbedd bi di ñi di vidéo parce que xam nañ ci jamono yu vidéo la nekk waaye gars da ngeen di gën laaj di laaj man Mister de ngi lu kenn wax man vacances euh, ay waay ñiñ sonal nañ ma ak samay seen woote yi waaw est may dégg samay vacances Sénégal tayle naa ko parce que ñoom bëgguñu kuy génn di wax ci ñoom muy Macky Sall muy waa APR comprendre nga sama jabar noonu di ma woo taluñu jabar taluñu dara nekk ci live bi gars gi yéen tamit il faut ngeen di like il ngeen ñuy soutenir waaw Sénégal wan video leen vidéo yi. Euh, Kër Farba Ngom euh, fan la fan fan moo ko wanati woon sax Farba Ngom euh, su ma mënoon génnewaat Farba Ngom Farba Ngom ban kii ba Sénégal defe naa xaar leen ma wan leen lan moo tax mer li tax mer ba tey ñu jàpp ay xale di leen dóor defe naa Sénégal ba Senegal. la Buzz Sénégal TV officiel xaw ma est-ce que loolu Buzz Sénégal officiel Farba Ngom non Sénégal Buzz Sénégal officiel Sénégal officiel benn site la defe naa moo génne woon euh, moo génne woon vidéo Farba dañuy taal këram waaw bii la bii la heureusement que je me suis souvenu lii moo tax mu mer moom nag waxuma ne Farba moo yónni gendarme yi de mais kër Farba Ngom gis ngeen ko moom lañu taaloon nii gis ngeen jëppeet jëppeet gel bi naan taal nañ ci kanam taal nañ ci ginnaaw dégg nga dégg nee na ko di ngeen xam ne ngoor ngeen ko seqal dégg nga li gel bi wax di ngeen xam ne ngor ngeen ko seqal gis ngeen kat Fatma Ngom jëppeet tey ñu yeewu ñu jàpp béy di ko dóor dóor yu métti li moo waral léegi nit nag booy def enquête defal enquête mais doo fekk nit këram nga nga ko jàpp ko génn ko ba pare génn ko taxaw ci mbedd bi ko dóor dóor yu métti dégg ngeen waaw ñii nag dañoo demoon pour filmer kër ñu ne leen doo leen ko filmer waaw gis dégg nga kër Farba Ngom moom la taal lii nag buñ ci jubul mën na indi guerre civile parce que Farba Ngom gars yi gën leen laaj gën leen partage Farba gis nga këram bi Almadi la nekk kër bu 1 milliard 2 milliards kër bu këru Almadi booru géej gi jaajëf flex xam nga yi gën leen gën leen partage xaaral ñii wane wuñu lépp gis ngeen kër gi jëppee gis ngeen kër gis ngeen dégg léegi da ngeen duppe ñu bëri crédit allahu akbar dégg nga da ngeen duppe ñu bëri kër fa baa ngi nii taal lañ ci kanam taal ci ginnaaw gis ngeen gis ngeen gis ngeen saxaar si naa cent personnes ñoo jug mu bañ ko songee ci lañ ko taal waaw bañ ko taalee ci la kër gi yàqu man nag démb sama live lan laa leen waxoon gars yi may leen maay kër man maay Mister Shake man li ma leen wax da ngeen koy gis maay Mister Shake de waxoon naa leen dinañ jàpp dix booy waxuma leen ko fi waxuma leen dinañ jàpp dix goos taqal leen même bu ñu deful sax

gis nga ñu leen teg dégg naa dañu leen doon dóor ba ñu yóbbu leen hôpital il a fallu ñu woo benn colonel colonel bi sax moom mujj nangu pour ñu yóbbu leen hôpital ba ñu yóbbu hôpital xool leen après dañ delluwaat kaso vraiment dëkk bi yàqu na man li moo tax Sénégal bëggatuma fa teg sama tànk billaahi metti na nag nga am sa dëkk mënatoo sax dem vraiment si si si difficile quoi waaw nga dem nga am sa dëkk mënatoo sax dugg nous sommes des apatrides vraiment Macky Sall gàddu na suñu àq quoi sérieusement waaw ñun bu ñu xamoon ne buñ ko buñ ko buñ ko voté président bëgg nguur dina tax ñu jàpp ay nit ñu leen dóor taal kër jàmbur moom ñun d' accord uñ si tey d' accord parce que parce que taal kër parce que ay doomu Farba mënoon nañ fa nekk ay jarbaatu Farba mënoon nañ fa nekk ay mbindaanu Farba mënoon nañ fa nekk ay gardu Farba ñun d' accord uñ si taal kër jàmbur mën nañu xeex ak Macky Sall jële ko fi sans taal kër xam nga sans violence mën nañ ko def ni ñu mën a def mooy ñu génn dégg dégg wóorul médecin bi sax nee leen bu leen leen denc ci kaso ba mais terewul jàpp nañ leen ñu jubal leen jaajëf bi bu laaj waaw voilà dégg nga hôpital militaire Wakaam léegi li ci dangereux mooy dangereux mooy tey Bayti Fall bi xam nga Baytir Fall bi ñu dóor buñ ko dóoree ba mu dee loolu mën na tax waa Yoff génn daal di gën a xeex xeex bi gën a metti mais ñoom Macky Sall wala wala wala gendarme yi wala nervi xaw ma ay nervi lañ xaw ay gendarme lañ parce que un gendarme vraiment amuloo droit nga jàpp nit du ko dóor ak lu mënti def nit même bu reyoon nit nga dem fekk ko këram nga jàpp

bugguma koy bugguma bugguma ko tudd parce que aw ma preuve mais man dama ne woon ba dama ko xam li mu mel ni mu tàngee defantekat la Farba defantekat la am na fi benn policier bu ko mus a jàpp dégg naa ci tali bi mu yuuxu ko ay yuuxu yu métti Farba Ngom doomam ba mu sàccee cent deux cent cinquante million dafa yónni El Capo El Capo wër ay booy ñu jàpp leen menacé leen diri yóbbu leen xam ko El Capo sax moo mujj wax ne moom nangu jàpp jàpp doom bàyyi doom xam nga et cetera et cetera ay booy ñu nangu seen ordinateur mais man lii bu mu amee démb dama ne leen ne ñu cibler ay nit je vous l'avais dit gis nga nit moo nekkee ci gouvernement dëkk da ngay xam gouvernement bi seen modus operandi operandi man nit ñuy def lépp dama ko xam man Macky Sall damay man dama leen gars yi gën leen laaj gën leen waaye lii régime boo xam ne li nëbbu tootu munoo toog ñaari fan léegi te jàpp ñu nit Sénégal Macky Sall génn dem ci Pa pas di wax dialogue mais dialogue kenn du ko commencé ni dialogue bokoy def da ngay euh, prisonniers da torture parce que les torture la Nations Unies ce ko wax torture la nit yaram yaram dafa sensible waaw ko nga ko da koy gis ngeen booy bi ñu fi jàpp keroog di ko dóor muy wañaar wana naa la ko tey tamit ñu wane waat béyti te béyti li ñu ko def moo gën a garaaw parce que dañ ko sëqatoo génne ko këram amuñu ay preuve dañoo dégg rek ne moom ci ci yi la bokk quoi mooy comme nga nekk sa koñ rek comme man tey HLM bu fa demoon mooy bokk ci dirigeant yi parce que xam nga damay politique xam nañ ma sama koñ dama daan football nawetaan noonu la demee waa ji waa ju xam la kon tey bu ñëwee. du Salem ah Salem mujj naa la yónni man gis nga damay yónni sax ma fàtt naa ñu ma yónni Salem nee na mujj naa ko yónni waaw moom Mauritanie la nekk far flex yow tam naa la mais tey dinaa jëlaat trois wala quatre personnes ma yónnee leen gars yi ngeen baal ma ngeen baal ma euh, aw ma temps billahi wallahi ma temps sama jabar sax pour ma woo wax ak problème la gis nga ni may woo sama live parce que liggéey bi may liggéey chaque jour sur sept gis nga tey dama ne woon damay génn. gis nga dëkk bu ma nekk dama ne woon damay génn mais dama sonn gis nga heureusement tey ñëw naa sax toog affaire Sénégal rek laa mënul bañ a wax man sama lépp Sénégal la billaay wallaay taalaay dama bëgg Sénégal parce que ñun ku nekk sa réew rek nga am kon bëgguñu réew mi tàkk Macky Sall bu ñu mënee wax ak moom ci jàmm ak salaam ñu jëm koo raisonné parce que Macky du nit koo xam ne da nga koy menacé comme léegi essayé nañu menace ba sonn menace jàll lan la ñu war a mën a def. nañu jéem a raisonné ak moom sa difficile nag ku mel ne Macky Sall ngay koy jéem a raisonné parce que moom booy booy raisonné danaan kii tàppat la da nga koy def la da neex da koy neexal xëy na Ousmane Sonko ci loolu la jóg la jël moo tax mu noppe xëy na Ousmane Sonko dafa bëgg def benn stratégie bu bees Macky Sall nag li mu bëgg moom mooy ne Ousmane Sonko man waxuma ko bu def waxuma ko bul def moo def wala waxuma moo deful ci affaire Adji Sarr wala mu lañu top toppatoo sen candidature Ah, général ah yow mu tam mu yone général DMG le show gis nga man dama eh, yone ba fàttali ne yónnee nit do yow sama sama way ga yow da nga yag da nga yag suuf da nga yag suuf yow Mauritanie nga nek Mauritanie amna ñaar nit yu fënd ni na général ak ak Salem pour man yónnee eh, wu ma la sax tellement dama son xaw ma sax fuma nek way gaay gën leen laaj gën leen partager 10 personnes bu soba yalla 10 personnes len rek la soxla sa tour bu mu nekk sa sa sa sa carte d'identité ak fi nga dëkk sa adresse non ñoko ko bokk yow dag ma maa suuf yow mom vraiment yow mérité nga ko dag ma maa suuf waaw flex mom gat bes la waye gis nga dafa ñew chaque jour muy ñew dem ba nekk modérateur xam nga mais yalla baax na man ñaanal len ma rek waaw parce que vraiment li da fay won Macky Sall dafa waron Macky Sall que ne metti na parce 50000 cinquante mille dara gars gën leen la gën leen partager cinquante mille du dara billaay wallaay taalaay lii dafa war a wax Macky dafa war a góorgóorlu mu jàppale xale yi àddina amul solo gis nga milliards yi nga yor boo bëggee tey dem àjjana waaw boo bëggee dem àjjana li nga war a def àjjana bi ñuy wax walla yàlla yërëm la amul sax yërëm gis nga nit booy def waroo sax def pour yàlla wala pour nga am ci ngërëm da ngay xool nit ku soxla rek nga yónnee ko am na ku ma ne sax sama jabar dafa ne ma lu tax mënoo koon comme ça lu bari am ma ne ko déedéet vingt cinq du dara nit boo koy may da nga koy may benn somme boo xam ne au moins dina ci mën dina ci mën régler quelques problèmes cinquante mille du dara waaw man bu ma nekkoon milliardaire ñu bëri dinañ nekk millionnaire lii lay barke la li moo tax aw maa yee immeuble lii moo tax aw yi yee immeuble mais samay xarit yoo xam ne ñoo jàngandoo ay Mamour jàll yor ay kër yor ay mili ay ay parce que ñoom matériel xëy na matériel la ñu gis Mamour Diallo nag moom dimbali mu ngi ay nit waaw. ñu dimbali ay nit lolou mom mom moom wuute nag yenn wa affaire mais dama pour ñëwaat ci yëf yi rek ki euh, des milliers de milliards c'est Farba on a trouvé des milliers <laughs> Farba mom kërëm mom xaliss daf du Farba mom milliardaire la lolou mom kenn weddiwu ko te li indi problème bi li indi problème bi moy dafa jël souf wa Ngor dégg ngeen bi genn accusé Farba mu ne ko ñu ngi lay tudd ci li yëpp li yëpp ñu ngi lay ci tudd lii yëpp ñu ngi la ciy tudd tey gis nga li la dal neewoon naa leen Farba dina répondre xaw ma ndax Farba moo yónni gendarme yi xamuñu ndax Antoine Diome moo yónni gendarme yi xamuñu ndax Macky Sall moo yónni gendarme waaye seen gendarme lañu seen gendarme lañu kon dañ naan ñoom la lii nag dafa rafetul parce que askan kenn mënoo ko noot mënoo lii day tax mu gën a mer waa Macky Sall même buñ ko bàyyi woon mu bokk ci élection yi comme ni ko Pape Alé Niang waxee. fan lay jaar ba gagné mais makki Sall ñëpp xam nañu moom élection xam na ne Sénégalais duñ ko voté moom pour moom lépp njuuj jaaj la pour moom dafa war a négocier ak Sonko Sonko bàyyi ko mu bokk waaw sa 44 chiffre ba bokk gars yi gën dafa bëgg Sonko bàyyi mu bokk ci yi bu Sonko bu bokkee mu jéem xool nan lay njuuj njaajee foqati nguur gi ci Sonko makki Sall nag loolu xanaa Sonko du ñàkk fayda bay nangu di dem ci élection dégg naa bracelet yi Sénégal yëpp ñëpp jënd nañ bracelet waaw man nag fi ma nekk am na ku ma ne ndax mos nga ndax jënd nga sa bracelet nan laa jëndee baat bracelet <laughs> fi ma nekk xanaa damay dañ ma koy envoyé ci internet mais mën naa wax sama jabar mu jëndal mu jënd moom ba pare jëndaaleel ma dégg naa bracelet yi moom ñëpp a ngi jënd ñëpp a ngi jënd kon Macky Sall mënul gagné élection. ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko nag dafa mel dafa bëgg changer stratégie Macky Sall tamit dafa mel dafa bëgg changer stratégie parce que Macky Sall dafa dem ba ci biir mu xamné ne mu buggul forcé bëggul nekk dictateur mais Macky Sall c'est un homme très c'est un homme vraiment complexe nit complexe la ndax benn côté da fay bëgg jamm mais beneen côté aussi mi ngi bayyi ñuy japp ay nit ku melni Bassir Diomaye ku melni euh, nous euh, l'autre Cor euh, Mandela ci ben côté aussi mingi gis ñuy door ay xalé torturer ay xalé mu noppi waye bu ba ci Pa Assane xawma geuy lolu musu def journaliste sénégalais gëj nako def bok kon mom ci de changer stratégie Macky Sall yoonu Sénégal tak man lima gis billaahi xel bi dafa jaxasoo des fois day yeewu ne man euh, Marème nañu takk suñu bagage dem des fois mu yeewu ne non non dem am naa chance parce que ñoom Sonko dañoo ragal Sonko mën naa ko éliminer xel bi mooy werante bu toggee mu xalaat gaz bi mu xalaat or bi mu xalaat avion présidentiel mu xalaat projet yi mu bëgg a eggale eggalewu ko loolu mooy tax des fois mu bëgg toog waaye bu gisee sénégalais yi ni ñu ko. yàbbee moom Macky Sall moo la gën a xam ne Sénégal yi dañ ko suur moo la ko gën a xam mais la nit la boo xam ne dafa dafa dafa rëy dafa rëy te bëggul defet te moom dafa jàppoon ne liñ ko tàmbal Sénégal lépp lu mu bëggoon nag daka daan am lépp lu mu bëggaa am waaye nag mu dem ba gis tase ku mel ni Sonko Sonko nag il nekk problème ci moom mais mu rëy mais boo leen gisee tey Idrissa Seck genn gouvernement ya ñaari ministre Macky Sall nomewul sax ay ministre kon ki day waji dem ndax ministre des sports Yanko euh, Yankhoba Diattara ñëpp dañu yaakaar day day day wat way euh, way fatik ba na la tuddu ministre ministre sport bi nekkon fatik. ñepp dañu yaakaar mom la Macky Sall di jël joxat ko sport mais déedéet Macky Sall dafa jël lepp mu jox ko Amadou Ba fu Amadou Ba moy premier ministre. mooy ministre des sports mooy ministre de loolu kay mooy xëy na Amadou Ba mooy sama candidat Macky Sall day waaj a dem li tax mu jël sport ak élevage jox ko Amadou Ba Amadou Ba lay waaj ak ngemb waaye Macky bu sañoon balaa muy dem day éliminer Sonko ba pare baay Amadou Ba nekk fa réewul ak état Assane Gueye laajul Macky Sall laaj yu mu ko waroon laaj. laaj bi mu ko waroon laaj mooy daf ko waroon wax yow fan nga teg que ne da ngay bokk d'abord balaa nga naan nii wii nii noo lool la ko waroon laaj waaye laaju ko ko dafa ne ko rek da nga ne woon sama frère Babacar sama benn confrère Babacar euh, waajo ñu ngi tudd waa RFM bi Babacar Fall nii wii nii noo mais yow daf ko waroon laaj fan nga teg Macky Sall que ne da ngay bokk bu boobaa makk dina ne ko constitution euh, référendum bi. référendum mais ñemewuñu laaj yenn laaj waaw mais nag Macky boo gisee tey bu ñëw di wax Pa Assane Gueye journaliste sénégalais te moom ñëpp nañ ne France 24 la leen waxal ak RFI Marc Marc Marc lii Marc lii Macky dafa jaaxle li ko jaaxal nag instant yi li leen jaaxal mooy Sonko dafa ñëw mu noppi Sonko dafa ñëw mu ne tekk tekkaaral te Sonko lan lañ ko xamee jàpp nga jomaay xaaral ma génne xale yi ñu génne jomaay jàpp nga euh, Mandela Coro Mandela xaaral ma génne xale yi ñu ñu ñu ñu ñu jàmbaar ak yow. nee nga damay wuy ji Mame Mbaye Niang le huit xaaral ma def discours de feu te nee naa leen Sonko sa saa yu Macky Sall génnee moom it day génn ñaari fan ñetti fan laa leen wax ne Sonko notre chanteur bi peuple wali sek wali sek talatuma talatuma wali sek talatuma musique gis naa benn woyam bu mu génn sax temps yi laa koy doog seetaan xëy yaa xaw ma talatuma waale waale maa ngi dégg ñu naan dafa am problème ak Youssou Dieng na ko ci euh, euh, dafa am problème ak Ameth Thiou Ameth Thiou mu ngi génn di parce que parce que balaa ngay balaa nga ne naam day fekk Sénégal di waaj a takk tel talatuma Youssou xaw ma sax wayu bees yi li mu nekk Wally Seck sax moo tax ma seetaan xëy yaa bi waaw nengeleer moo xew <laughs> man léegi show <laughs> yi Mollah Morgun moo xew nañ nga leer waaw sama nel bu leer eh lépp leer nañ nga leer ma xaw Wally Seck xewatul <laughs> tey Sénégal bu tàkkee mais nag Macky Sall la <laughs> Mati Touré Mati Touré sonal nga bëgg nga ne nga ne dama ne Mati yow demal yow il faut mu meele cinquante mille Mati demal si ci Facebook bi

parce que tay stratégie bu bees bu président Sonko mom lañuy discuter stratégie Sonko Mary Gueye nee na man tamit <laughs> mais mënu walen leen may yéen yëpp kon mais saa kon man man dinaa dee de mënu ma may yéen yëpp mais tamit il faut ngeen xaar dinaa dama ñëk jël 10 personnes buñu ñu demaatee ci biir dinaa jëlaat yeneen 10 personnes mënu ma may ñëpp nak je ne suis pas je ne suis pas euh, euh, nu mu tuddati mais mari ma ngi lay bàyyi xel dinaa la bàyyi xel waaw. Ousseynou jaajëf mais gars yi bu ma dévier dama ne Macky dafa def benn stratégie bu bees xam nga mooy mooy lan Macky Sall dem ba ci biir xam ne mënul rey Sénégalais Macky Sall du assassin Macky Sall du Yaya gis nga gars yi rey nit dafa fort tëj nit ak rey nit c'est différent Macky moom tëj mën na ko Marie bul wax dara yow bàyyi dinaa la bàyyi xel bu soobee yàlla gis nga tëj nit ak rey nit. c'est différent Macky Sall gaaw na ci tëj trop waaye bëggul rey moo tax mu yónni Idrissa Seck xam nga Macky bu demee ba jël risque tey mu taqali ko ak Idrissa gis nga nguur boo koy perte tepp-tepp lay dem xam wax naa la ko mais après yu réet lay mujj billaay barke rasulaay man fi mu nekk am naa yaakaar trop que ne Macky Sall du taal senegal am naa yaakaar li tax Sonko toog noppi Sonko am na lu mu xam président Sonko am na lu ko Idrissa Seck wax lu tëj mu jóge ci Macky Sall ñëw ci moom président Sonko am na lu mu xam mu jóge ci Macron ñëw ci moom président Sonko am na lu mu xam mu jóge ci États-Unis bi ko bëggoon invité seen euh, indépendance président Sonko fi mu taxaw dafa dëgër président Sonko am na lu mu xam ci ne procès may mañaa bi du mujj fenn ana kooku marocain gëj nañ ko dégg de eh, le marocain man waxoon naa leen Macky Sall bàyyi na la marocain te lii wane ne Macky Sall bàyyi na la Marocain makki Sall tey ñaari ministre yi wa yi bàyyi bokkoon ci euh, Idrissa Seck mënoon na ko jox Mame Mbaye Niang ah mais Amadou Ba la jël mu jox ko ministre de l'élevage mu jël Amadou baa jox ko ministre des sports donc Amadou Ba c'est un super premier ministre xam nga loolu mooy lan yow yaay numéro deux Amadou Ba su may dem yow yaa fiy toog Macky Sall nag ñun luñ koy wax mooy na xelam dal bu bàyyee prisonniers yi mu bàyyi tëj bi mu bàyyi booy yi ñuy dóor mu bàyyi suuf ñi ñuy jël Macky Sall bu defee loolu ñun dinañ ko garantir que dara du ko dal moom Marème Faye Sall ak Amadou Sall kenn du leen def dara parce que tey Sénégal boo ko taalul Macky Sall billahi wallahi taalaahi ñun dinañu ñun ay activiste lañ ñun duñ fi nekk di fayonte ak yow di def chasse aux sorcières mais ñoom Farba Ngom ñii di yónnee bu dee ñoom la dafa am ñoo xam ne fu mu nekk dañoo bëgg taal réew mi moo leen arranger Macky Sall buy jéem a négocier sax gis nga ñu jàpp xale yi jàpp di dóor parce que ñoom dañoo jàpp ne ay Farba Ngom dañoo jàpp ne Macky Sall bu daanoo ñoom tam dañuy daanu ko ñoom li bu ñu sañoon xeex day am loo tax lii xam nga ne lii pour pour pour yéen Macky Sall dina dina wax gendarme yi dem leen ngeen jël benn xale dix xale. ngeen jàppale di leen dóor ñu koy filmer mais Macky Sall intellectuel la Macky Sall moo doon président de de euh, euh, l'Union africaine vidéo ñëpp a koy gis ay na ay mappandoom dañ koy gis ne ko waaye sa dëkk léegi lii la lii moo xew ay gendarme dañuy jàpp ay xale di leen dóor bëccëgu ndaru kam mais ñu mel ne ay Farba Ngom wala ay Antoine Diome ñooñu ñoo yor pouvoir boo xam ne ku leen neex jàpp ku leen neex dóor mais pour jéem a forcer Macky Sall pour jéem a forcer Sonko wala waa Ngor ñu génn guerre civile am ñoom lool dañoo jàpp ne bu Macky Sall daanoo ñoom dañuy dee alors que mën na bañ a dem waaw kii ku muy wax naan à quoi bon si tous ces blabla xanaa waxaloo ak man de baay baay boo bëggul déglu baay baay bul dugg sama laaj comme man damay blabla waaw boo bëggul dégg boo bëggul déglu blabla blabla. nga dem feneen fu ñu dul balaa balaaw ñun dañuy analyser waaw Macky Sall bu bëggoon guerre du fi nekk di leem-leemi bu bëggoon guerre day rendi Sonko ci affaire Mame Mbaye Niang lan moo tax marocain noppi boobu ba léegi lan moo tax El Hadj Diouf noppi waxatul ñoom ñoom attaqué tuñu de attaqué tuñu dañoo toog noppi lu tax parce que xam nañ ne affaire mambe Mbaye du mujj fenn ana Adji sar ana affaire Adji sar lan motax ñu jël ko ñu ranger ko dans les dans aux oubliettes Macky Sall légui limu bëgg dégg ngeen ko limu wax Pa Assane Gueye ñom nañu régler sen candidature man ñu bayima ma régler sumu candidature limu bëgg moy ñu and ak mom dem ci ay élection té loolu duñ ko nangu duñ ko nangu duñu tak yow ci ay élection parce que boko parce que élection yo bo ci bokkee da ngay njuuj njaaj c' est problème Macky Sall mais yow Macky Sall xam nga man lan moo soof ci Macky Sall xam nga man lan moo soof ci Macky moom daf ñëw jàpp comme ay xale le marocain il est malade <laughs> marocain de marocain Mame Mbaye Niang maladul de feebarul de xam nga Mame Mbaye Niang lan moo ko dal li leen waxoon Macky Sall bàyyi na ko Macky Sall bu la dénkee benn mbir mbir mi sottiwul.

ñu bañ a tëj Sonko nii vraiment kontaan nañ ci c'est un verdict d'apaisement parce que Sonko buñ ko tere woon ci réew réew mi ne doo bokk dëkk bi day takk kii nee na marocain ay tey sakk il a rien compris marocain lu tax mu noppi moom nga xam ne dafa tàng di wax ne lii non dugg na fii génn fii lan moo tax mu noppi parce que Macky moo ne ko xëy sawaay noppil sawaay Macky moo ne ko noppil lu tax ñu dàq ko ba le nee naa leen Macky Sall dafa am benn gàngoor boo xam ne ñoom ñoo bëgg a forcer muy Amady Diouf kooku moo ëpp fit ci ci le noyau li may wax le noyau dur les incorruptibles de de de de de Macky Sall Amady Diouf bi mais mom mo wara a àtte Sonko lu tax mu ne moom mooy parce que ben juge bëggul jël cas boobu beneen juge parce que juge Keita li def juge Keita li def ak juge Mohamed Diop. Mouhamed Diop dafa bàyyi bañ ne suba la mu ne cas bi du ma ko jël parce que d' après Mollah Morgan mais Mollah Morgan moo gën kenn du ko cité parce que moom moom ñëpp xam nañ day fen mais Mollah Morgan dafa ne juge Keita dafa am ay pression familiale ay mbokkam jur juge Mouhamed ay mbokkam ñoo ko sawaay bàyyil mu bàyyi même bu dul pression familiale juge Mouhamed Diop xam na ne bakkenam

mais même bu moi là amul ay amul source mais moi là mu wax foofu xaw na am sens que le juge Mohamed Diop dafa am dégg nga kii mais il est pertinent mais Mollah Mollah lan moo tax mu bëri ay fans moom <laughs> jaax yéen Mollah li mu def ba dëggu njër kam ñëpp gis ko président Sonko waneel sa bop ni nga mel xam nañ ko waneel sa bop président Sonko li nga mel dëgg-dëgg wax ko ah xam ngeen ni lii def vidéo sol kilot ah Sadikh Top naan ko montage la mu naan ko montage ah xoolal bopp bi xanaa gisuloo ni mu wangalee bopp bi nii ci foto bi lii montage bi Sonko buy wax day wangal bopp président Sonko ni nga mel xam nañ ko ah bu dee da am problème ay waay li ma gis billahi wallahi watalahi li ma gis xool leen sama bët nelaw sax defuma ko ah <laughs> <laughs> sama voisin la boo tax ah sa voisin la sa voisin la fan Canada billahi wallahi watalahi li ma gis nelaw ma oh ah, sama xel metti na mais patriote yu bëri dof man jur boobu euh, euh, loolu yàlla daf ma ci boole laay boobu ala laa une SN la laa une SN chaîne boobu xam naa ñu Macky nañ ba tëj ko billahi en Canada nga nekk wallahi da ko xam xam nga fu mu dëkk sedd dama koy rey de wallahi watalahi li ma gis president soko du montage wax limi wax dem ci hotel ba ha ñu solal ko 3 pièces yow nga ñew fi di di di di kii di di di di di défendre Mollah yow bella woman Mollah mo di xaar leen bu mois de mars mois de mars di ngeen gis lo leen musul gis dina leen wax kan moo defar vidéo moom mu ne vidéo bi man maa ko monté man maa wax waa ji maa ko monté maa maa woo sama benn booy montal ma vidéo mu montal ma vidéo loolu yëpp ma tegal leen ko fi mu sol trois pièces di ngan na ngandal def nii rek ak balisat bi Doro Gueye yóbbu ko yàq ko xam ngeen ne moo laa mënul solo dooro Gueye moo ko yóbbu yóbbu ko soppi parce que Doro Gueye c'est un de classe ah xam nga te doon nu mu dugg mais voilà ak piloweer piloweer béninois yooyu mu doon sol sànq am na si benn béninois bu ma tontu tontu mu ne ma monsieur Cheikh sax nga bu yàgg Sénégal bu dégg olaf <laughs> mu ne ma monsieur Cheikh sonal ñun ñun béninois moo laa dina yàq sama laay moo laa ni mois de mars ana ana ku fi waxat hey dañuy raak jiji nañ dem Sénégal yéen ay sóobkat ngeen ah Akhenaton dañuy dem Sénégal dañuy raag le 23 février ana Mollah dem na raag Mollah mi ngi fi ba léegi mois de mars mois de mars ak a mën a fen Mollah dafay fen ba ay fenam mais xanaa du Mollah moo ñu waxoon ne mois de mars début de mars dinañu génnal cas bi mais après du moo fiy génnoon du ñu saaga béyaa waman Mollah saaga na la yow mi Sénégalais yi man ma nekk fii di raag di sonn doomu xaraam yi ngeen doon ah ah deux cent cinquante millions bu buñ ma joxaatee deux damay lekk ndeyam li ngeen xamu leen kuy gor quoi ah yéen sénégalais xamu leen kuy gor nekk fi ci sedd bi ñoo ne ko ci sedd bi nekk muy dox sedd sedd Canada bi moo laa buy liggéey day dox trente minutes saa yi Mati Touré sedd sedd Amérique yéen xamu leen ko sedd Canada moo gën a raw man sedd sedd sedd Amérique xam naa ko bu leen fàtte ne man tamit Covid bi sonal naa fi Mollah li muy dund dama kaa dund Covid bi sonn naa naa trop xool leen ma fi ma nekk maa ngi ci àjjana léegi macha allah xool leen ma fii de amul fii amul neige gis ngeen àjjana que 199 lay lay 199 lay noo dala fi ma nekk àjjana la waaw waaw gis nga dem gis nga mais ba ma nekkee ci Covid ba sedd ba di def samay laaj di dox ci mbedd bi général James ji xam ne si dara moom yàgg na musiba ñu téye sama 8 millions dërëm yoruma ko nekk ci sedd ba Mister Shake. ah depuis Brooklyn New York sa bi di ma bëgg a rey moo laa moom instant yi loolu lay dund ah dox nday ci sedd bi ah sénégalais nga nekk fi di wax na dama dama lekk deux cent cinquante millions xaaral rek bu ma moo tax jotaatee deux cent cinquante millions lekk ndayam eh bu leen yàq bu leen yàq sama show <laughs> mais Macky Sall laa leen wax ah kii nee na j'arrive j'arrive comme comme xaw ma la nga expliqué dama leen bëgg expliquer ne le Marocain Mame Mbaye Niang gisee mu noppi c'est parce que xam na ne cas bi du mujj fenn Amady Diouf dàq cas bi la will ba le huit le huit bu ñëwee la huit ma le huit euh, mai bu ñëwee daf koy dàqaat parce que yow <laughs> Baye yaa ngi yàq sama sama sama live de <laughs> kii ne la direct Ndembe Ndembe Couture Ziguinchor waaw ah. non man man li ma dal li ma dal wute naag moo laa ndax man lu bon bon. maa ngi maa ngi woon ci appartement bu baax gis ngeen fi ma doon def appartement bu nice laa nekkoon ñu ngi ma doon fay trois cent mille euh, par par par par euh, semaine xaalis ko mais dama toog deux mois yoo xam ne rappel lañ ñu ko def mais deux mois balaa xaalis bi di ñëw j'étais fatigué sonnan naa du ko nëbb kon moo laa li muy dund dund naa ko sedd bi mais xool leen ma instant est maa ngi ci sedd <laughs> parce que damaa bëgg Sénégal moo tax yàlla di ma suturaal mais Mollah dafa wor <laughs> moo tax yàlla bàyyi ko ci certificat bi gisagul dara sax bu génnul mu baalu bu génnul mu baalu béninois boobu balaa mi de mën a nañ nga leer nañ nga leer billaay nañ nga leer waaw lépp leer sama del bu leer moo Sonko ku ko songu sax ku Sonko ak sappaaral Sonko ku ko songu sax ku Sonko ak neex a faral gis ngeen original Sonko ku ko songu sax moo laa ni béninois ak bopp bi mu sol benn t-shirt sew rucc mel salir sonkoo ku ko songu sax ku sonkoo ku songu sax ku sonkoo ak a neex a paaral <laughs> sonkoo la yàlla fal na ngeen ko faale waaw waaw voilà nag baat bi dafa tax sonko génnal ko remix Sonko moo laa Sonko folli bu ko faale waaw ku Sonko folli bu leen ko faale ak ban ak ban wuu Amba Mola Morgan wuu Amba Mola Morgan wuu Amba Mola wuu wuu jàmbu bon baa ngoog mu ne bañ démb moo dikkaat tey am sutu sud bi yaa mën a wure Mola Morgan yaa mën a am sutu sud bi ya wure warana rappeur la de ki deh kini bu voilà aku mën a rap rappeur la de waaye te nag ma teg attaay ji nag naan nii nag di fuural nag di jaay gére nag di jaay gére appartement bu sann boobu nekk fa di jaay gére nag di fuural attaay gi teg teg nag wuu am baa mola mërkat wuu am baa mola day voilà mola moo mën a ngan na ngan waxoon naa leen ko oui je vous lii yëpp waxoon nañ leen ko MC Niass ah ah waxoon naa leen ko di wax rek moom pour lépp moo ñu ko wax bu ne almet taal jàpp sen jabar laal briquet almet pneu essence taal jàpp seen jabar laal voilà maa ko gën a grand de yow rab maa ko gën a foofu eh gars yi man Mister Shake musicien laa nag ku ci xam ku ma xamul dem leen nga déglu sama son Ndiago Sogo wala ngeen déglu ah bëri naa ay son de wala demee euh, euh, foofu nu mu tudd ci sax euh, fi ñuy déglu musique fàtte naa sax nu mu oh, wala ngeen dem iTunes xaar leen rek am naa yeneen son yu naaj yu ma nar a génne bu ma bu ma jëlee vacances Mollah Morgun dóorkat la dafa xeexal Sénégal Mollah day rey nit anti stress la anti stress déggu la li mu ko tuddee. mégalomane bonimenteur narcissiste euh, menteur euh, euh, nu mu tëddati psychopathe moo day fen ba gëm ay fenam waaw mais gars yi bu mu yàq sama laay bi ba woman bul sama laay parce que analyse bi may def dafa am importance le marocain le marocain lan moo tax mu noppi briquet almet essence taa jàpp seen jàpp yi laal waaye ba ñu kër waxatul briquet almet essence taal de waxatu ko de waxatu ko de mais eh dama ne lan moo tax la marocain bu noppi ñi naan ma dafa feebar est-ce que dafa feebar kii nee na monsieur Cheikh Sonko is live waxoon naa leen Sonko dina tontu Macky Sall kii nee Sonko mi ngi live Facebook dëgg la xaaral ma jéem a dem live Facebook eh ak sama téléphone ba réew sama téléphone bi ma filmé sànq fan la dugg boo demee war na te yëgu ma gis waaw mi ngi nii kii nee na ma Sonko mi ngi Facebook c' est sûr en émecouteur deful discours xaaral ma jéem a est ce que dafay wax wala dafay kii rek en émecouteur ne woon naa leen Sonko dina tontu Macky Sall d' manière ou d' autre xaaral ma xool man sama lef téléphone bi amul Facebook la loolu mooy problème est ce que Facebook. sama téléphone bi dafa am Facebook defe naa defe naa Facebook ci beneen bi laa ko def ah non c'est pas grave waaw gars yi waaw newoon naa leen Sonko Sonko dina tontu Macky Sall Sonko Macky Sall mooy mappandoo Macky Sall saa yu génnee def discours Sonko il faut mu def il faut mu tontu xëy na nag du ko tontu par discours mais dina ko tontu par nemmeeku tur nemmeeku tur pour wane dooleem mais man li may wax rek mooy farma Ngom waaw non da koy def Sonko new naa leen day tontu Macky gars yi man maa Mister Shake nag man sama yi damaa mën a analyser macha allah bugguma mel ni moo laa de waxoon naa leen lii waxoon naa leen lii waaye maa Mister Shake léegi Farba Ngom ñoom Farba Macky Sall moo war a wax ak ñoom ba Ngom mu ne leen teg leen lépp ci suuf ñu jéem a xool porte du sortie ñu jéem a xool nañ leen di bàyyee ñu dem ci jàmm ak salaam ñoom Farba Ngom dañuy sonnal seen bopp bu ci Macky Sall lañu yaakaar. pour taal réew mi billaahi dañuy sonal seen bopp barki rasulaay Macky Sall bii ma gis dafa commencé ragal Macky Sall bii ma gis dafa ragal ana Mamour Diallo voilà merci merci ana ana le Marocain ana Adji la machine RM de l'hôpital Fann est en panne depuis des mois dama ne boo yi ñuy jàpp di leen dóor bu ñu deewee fii bu ñu deewee fii loolu mën na indil problème Macky Sall nañu bàyyi boo yi ñuy jàpp di dóor di torturer ana Mamour Diallo ana Adji sar ana Mamour Diallo ana Adji sar c'est ce sont de bonnes questions li yëpp daf lay won deug na nak tan ñu wax ay le policier nappel xawma dafa porte plainte Sonko dugg na fi genn fi mais lolu yëpp ay diversion la son ko bo leen gisee mu tok nopi fi mu japp mo dëgër lolu nak dañ ci wara a sant yàlla Idrissa sek bu baye Macky Sall daw parce que xam na ne Macky Sall du dem Idrissa sek bu baye Macky Sall rocceeku parce que xam ne ne Macky du jàll deux mille vingt quatre te Idrissa nu mu roxee gis nga tey Coumba Ndoffène Diouf Arona Coumba Ndoffène Diouf génn na mu ne bàyyi na Macky Sall gis naa ko mu def conférence de presse jotuma déglu nag newoon naa leen affaire tepp tepp lay doon mais yuréet lay mujjee di ngeen gis waa affaire yu bëri bàyyi Youssou di ngeen gis mu bàyyi Macky Sall waaw Macky Sall bii ma gis pare na pour takk ay bagages am ñun ñoo war a am suñu fulla ak suñu fayda bokk ñu précipité loolu précipité loolu sax mën nañ ko def sans taal Sénégal man taay yi dama commencé am espoir que Sénégal nag ah dëkk la boo xam ne xëy na yàlla mu daf ñoo bëgg ndax kat ku xool lii xewoon ci mois de ci weeru koor bii ñu jàpp Sonko wit sonnal ko marocain bi sonnal ko marocain bi sonnal Sonko ñaari yoon ñu jël ñu toj vitre beneen bi ñu jël ko yóbbu ah machine mais Sénégal dara lépp lépp Sénégal lépp lépp paan da ngeen xool tension bi amoon ci weeru koor te waa Macky Sall ci weeru koor bi la bëggoon pour daaneel Sonko parce que dafa ne xale yi dañoo xiif duñu sonn te effectivement duñu xeex mais weeru koor bi passé na te Macky Sall amul lu mu bëgg kon Macky day dellu ginnaaw Macky bu demee ba gis ne léegi juge yi sax dañuy jëngu juge Keita jëngu juge Mohamed Diop jëngu ah amatul benn juge bu nangu jël xanaa léegi Mamadou Seck rek moo fi nekk di yàq nit ñi di tëj Macky Sall benn juge rek la dese buy tëj nit nañ muy Mamadou Seck mais yeneen juge yi dañu commencé di di fépp yéen li xaw ci suuf xamu leen ko billahi wallahi taala comme sabar bu tas gis nga nguur Cheikh Yérim waxoon na ko fi gis nga nguur bi waaj a daanu sabar bu tas ça va dans tous les sens fu mu nekk ku nekk mi ngi sàcc di jël di dugal lan motax Macky Sall ñaari ministre bay lu tax ci saa si jëlul yeneen nit mu remplacer leen mu jox len ministre des sports ak ministre de l'élevage nga xamné Idriss Idrissa Seck moo ko parce que xamné bu ko joxé ay nit dañuy sàcc dañ nan ci 9 mois moo dessé 9 mois yi xaaral ma tib li may tibb moo Macky Sall jël ñaari ministre jox ko Amadou Ba en attendant muy xol ku mu deug deug mu jox Macky Sall fimu nek ni day jéem a xool nan lay def soit mu nax Sonko ba bokk ci élection bu mënul nax Sonko mu jéem a négocier porte de sortie mu dem ci jàmm ak salaam te ñun loolu dañ bu dee loolu la bëgg dañ koo ci dañu war a sant yàlla waaw mais aw ma Facebook sama Facebook pour ma am naa Facebook mais xaaral xaaral ma jéem a xool xaaral ma jéem a sama compte Facebook euh, xaaral ma ci ma xam Sonko Sonko bëri na abonné de Facebook man abonné naa sax ci moom bëri na abonné am ba may mujj xool est-ce amuloon lu mat huit cent mille abonné xaw ma <coughs> léegi mu egg un million xaaral ma xool sama mot de passe chaque jour dama koy fàtte. sama sama mot de face chaque jour dama ko fàtte xaaral damay fàtte sama mot de passe chaque jour ma bind daf leen dànk mais Sonko mi ngi Facebook c'est bien ne woon naa leen Sonko dina tontu Macky Sall waxuma leen ko woon mën naa leen ko de sama mot de baaxul de gisoo moom fàtte naa sama mot de ngeen baal ma waaw mais de toute façon live bi daal man daal li ma leen di wax mooy. nañu nañu nañu sant yàlla parce que man temps yi moom am naa espoir que Macky Sall dina takk ay bagages pour dem naa jeexal lay bi bàyyi pour wax leen F24 le 12 mai nee nañ dañuy marche léegi une date de naissance man damay fàtte sama sama mot de passe xam naa ko mais dama koy fàtte sa tur dama koy bind des fois mais dama dama koy fàtte. te boo boo ko boo boo insister dañuy tëj sa compte boo ko fàtte nga insister dañuy tëj sa compte loolu ci la ko fàtte boo defee trois fois quatre fois ngay insister dañuy dañuy tëj compte parce que dañu yaakaar le douze mai gëm naa ne dara du am dara du am le douze mai dara du am gars dañuy sóobu nii rek Macky Sall moo war a def attention. affaire lébu yii na ci def attention parce que boy door yi ko door kooku bu deewee fii mën na indi révolte mais entre temps entre temps est-ce que le 12 mai gars yi dañuy def forcing Macky Sall xeexaat xeexaatal ñun dëkk bi tangat wala est-ce que dëkk bi dafa dara a sedd nii dafa dara a sedd nii ba le 8 mai le 8 mai yëf yi commencé waat. Baye Dieng jaajëf namm naa la lu xew sama waa ji nuyul ma ko kay soog nuyul ma ko mu mënu ma woon euh, amoon jot quoi dugg ma woon ci ci laay bi Idrissa Seck bàyyi leen la jëree la de ndax dafa wàññi doole Macky Sall fi mu nekk ni mag dinaa leen fi mu nekk dañuy paniqué ñoom yéen xam nga ñun xam nga ñun lan mooy suñu problème gars yi ñun dañoo nekk fii xamuñu dara li xew mais billaahi tey bu ñu mënoon jël caméra. di ko yóbbu ci palais ba wala ñu yóbbu ko ci Mermoz réunion Macky Sall ñi muy waxal wala ñu amoon seen téléphone ñu am ko sur écoute nga dégg Amadou Ba li muy waxante ak Macky wala nga dégg Mbaye Niang li muy waxante ak Macky instant yi jaaxle nañu tiit nañu paniki nañu Macky Sall des fois day yeewu ne man bàyyi naa mais Mbaye Niang mën na ko wax nekk ko non non bul bàyyi comprendre man gëm naa ne fu mu nekk nii c'est la panique là-bas jaaxle nañu gis nañ ne seen nguur mi ngi daanu de l' autre côté Sonko moom tamit boo leen mënoon jël caméra ngeen teg ko ci kanam Sonko ak ni muy réunir wala Idrissa Seck ak Sonko ba ñuy waxtaan boo leen mënoon déglu waaw kii nee na Idi non Idi il souffle le chaud et froid mais c' est le résultat qui compte li ko mooy ba mu demee ba xam ne Macky sàll day daanu dafa rocceeku gars yi quand le navire prend l'eau So, uh, and good morning, Pride of America, Ohana. This is uh, Chris, your cruise director. And I hope you're having an amazing morning and excited for day three of our cruise together. As a, a friendly reminder, if you're looking to make your way ashore, the gangway is located on deck three midship. And you can get there by using the makeshift uh, stairs or elevator straight down to deck 3. Please keep in mind that all the board time today is at 5.30. I say again, 5.30, so be sure to make it back on time. Take part in one of the most exciting events on board the live champagne art auction at 3 p.m. in the Pink Champagne Bar located on deck 6 midship. If you're here feeling dry and frizzy, visit the Mandara Spa on deck 3. Uh, I'm sorry, on deck 12 F to receive 10% off all treatments. I repeat, treatments today. Wow. Receive a free, that's right, free mermaid beach towel with a $100 purchase in our kind shop today and today only. Happening in just three minutes. If you're looking for something to do, head on over to Napa Wine Bar and join us for a little Are You Awake trivia with your crew, staff, Wally. Oh, uh, uh, for more activities going on around the ship, just be sure to check those freestyle dailies. And again, if you're looking ah. to make your way to shore port. You can do that by heading to uh, the deck, 3, midship stairs or elevators right on down. Eh. All aboard time is again is eh, at 5.30. Once again, my name is Chris, your cruise director. I'll see you when I see you. Mahalo for listening and aloha. <laughs> man mais xam nga man tamit dama damaa damaa baax bu mu ëpp waaye damaa xool ne bu dee Macky Sall lu ngi reculer ba yaa di dem commencé di wax ak sax ay reporters sénégalais commencé reculer ma gis ne affaire Mame Mbaye Niang Mame Mbaye noppi na moom tamit ma gis ne benn juge bëggul jël affaire Mame Mbaye Niang ndax Amady Diouf ñëpp xam nañ ne mënul atte Mame Mbaye Niang ndax yow procureur nga woon ci affaire Adji Sarr ndax yow aussi affaire Mame Mbaye Niang yow yaa ci dugal.

waaye gis nga li xew Soudan militaire kenn du ko jox réew parce que dañuy reyante seen biir gis nga même président Guinée bi mu ngi commencé dof mu ngi commencé dof même président Guinée bi dungu yaa bi parce que dégg naa dafa am benn féticheur am na lu mu wax ci moom ñu ngi recherché féticheur comprendre kon ñu lépp lu ñu mën a def ba Macky Sall ne bàyyi naa mais dañ si war a sant yàlla mais dañ koy jox ay garantie mais di wax non non xaalis bi ñu sàcc il faut ñu récupérer ko seen kër yi il faut que

Macky Sall et sa bande seront jugés on va tout récupérer non non Mbaye Dieng Mbaye bi nekk Sénégal pétrole bi nekk Sénégal lakk jeexul ko bu ñu mënee am jàmm ba récupérer ko yow di nga am kër Merguez dina am kër dinañu gis nga li amoon euh, euh, Kadhafi li mu doon def doo fay courant doo fay ndox boo takkee jabar mu ne mu jox la kër tellement pétrole bi dafa bëri woon fi noonu la doon dem mais boo waxee ne dañuy fayantoog ñoom te ñoom ñu yor arbe gis ngeen gendarme bi ñu soxoree gis ngeen policier yi ñu soxoree Macky Sall dafa leen dafa dafa dajale ay sadi mu jël ñu mel ne ay Amadou Diouf jël Antoine Diome nit ñoo xam ne pare nañ pour joxe seen bakkan pour reyanteeg Sénégalais armée bi gis nga mu jël.

Sonko bu ko wootee kenn du génn c'est ça le problème xam nga lu ma mën a indi gatsa gatsa ñoom ñu baaj ñu continuer di def li ñuy def ba rey lébu doomu lébu bii buñ fa reyee lébu bii bu boobaa mën na leen indi problème mais woote gatsa gatsa woo sa gatsa gatsa kenn du génn kon kay bu mag commencé reculer Mame Mbaye Niang reculer mais Mame Mbaye Niang buñ ko joxee garantie ne ko sa milliard jël ko kenn du la def dara namur Diallo ñu lako sa kër kenn do leen def dara mais genn leen ngeen balu ngeen ba jox ñu suñu réew Amadou Ba nek sen candidat bu boba dañ leen di defal loi assemblée lañuy def assemblée nationale lañuy def ñu def loi d'amnistie ñu bal Karim euh euh l'autre comment il s'appelle euh, Khalifa Sall ba paré wa APR ñu jox leen ay garantie mais ñun Sénégal jamm lañu bëgg kenn du leen top kenn du fi def sa aux sorcières loolu jël réew jaru ko dama leen di laaj réew bu takk réew bu takk billahi ballah kii nee na tubaab dire quoi aux familles des vingt morts dañ leen di rembourser famille vingt morts yi dañ leen di dédommager xam naa ne nag xaalis dara gars yi man li may wax su fekkee ne Macky Sall dafa bëgg dem laa wax waaye bu Macky ne demuma boobu moom nag moom moom boobu moom am na droit xeex man foofu laay waxee mais réew bu yàqu man maa ngi fii de man maa ngi Amérique béyaa yoo xamu fo ne dafa naa ngi Espagne xamu yaa ngi France béyaa woo man dégg nga ko nee na maa ngi ñu ngi Canada ñun ñun wax jafa ne parce que ñu ngi fii man Sénégal nee naa la bu fi Macky tànk Macky Sall mu ngi fa dootuma fa teg sama tànk mën naa fa bañ teg sama tànk ñun ñu ngi fi ah suñuy jabar am na lu muy demee mën nañ leen lijjanti ñu ñëw fekk si mais dama leen di expliquer li may wax mooy bu dee Macky Sall li ma gis muy muy li ma gis nii temps yi dal na sama xel parce que Sonko bu tekk tekkaaral am na lu ñu koy jox ci ay garanti Idrissa Seck. li mu xam yëpp mu bàyyi Macky Sall am na lu mu xam xam na ne Macky mii ci suuf la jëm Macky Sall Idrissa Seck bàyyi ko loolu dafa wàññi lu bëri ci Macky Sall wala jigéen di xas naa mbal daal billahi barke barke Rasulaay sama famille Aboubacar Aboubacar Wade mënuma sauvé ñëpp <laughs> sama famille sama papa dund na 101 ans nga Baye nee na mi ngi France waaw. dafa yomb ñun ñu ngi France ah, ñun on ñun rëcc nañu mais ba Bayat dëkk bu tàkk te it xanaa gisuñu lu xew si daal militaire kenn du ko jox réew duñ ko delloo de barki a laay ndaamal kajoor ndaamal kajoor dafa wàññi lu bëri ci Macky Sall yéen c'est-à-dire yéen doo leen analyser Macky nekk mi ngi paniqué gisoo ñemewul sax ko woo ndànk ndaamal kajoor ñëw waa léegi démissionnaire la Barka Diop démissionné Macky Sall Coumba Ndoffène Diouf bàyyi na ko Coumba Ndoffène Diouf tey def na conférence de presse bu ne bàyyi na Benno Bokk Yaakaar jotuma déglu lépp nag di nga gis ñeneen ñu bàyyi Macky Sall jël ñaari ministre jox ko Amadou Ba mais ay signe la loolu ay signe lu tax nomewul ñaari ministre yu bees que xam na ne bu leen nomee dañuy lekk xaalis bi ñu jël ñaari ministre yi Ba Amadou Ba lay ngemb fi mu nekk nii. ñoom Mame Mbaye dañuy rangé wu derrière Amadou Ba Mame Mbaye Niang le Marocain lan moo tax mu noppi lan moo tax le Marocain noppi bu dee nag Macky jël na décision laa wax nag bu dee jël na décision ne day dem pourquoi ñu ne dañuy fayul teg moom mais saa yu jullit day baale tamit nit da ngay baale baale dafa baax Macky Sall sénégalais la. man Sénégal man ah, yow double nationalité man man man man man américain la national américain la baya maa la gën a bëgg Sénégal foofu man mi bàyyi woon Amérique trois ans et demi ba mu yàqal ma lu bëri sama retraite sax wàññeeku na li ma woon dara fayee bu ba retraite ndax trois ans et demi ku ko dem Sénégal cotisé wu loolu comprendre ne man dootuma dellu Amérique kooku bëgg na Sénégal dafa neex Sénégal rek kay dëkk surtout nag li c'est-à-dire yéen comprendre dëkk bu am pétrole am gaz ñu lépp jaar yoon ñun ne renégocier waat contrat yi suñu géej gi ñu nangu ko yéen ñëpp kër ngeen di am billaahi ñëppay am kër suuf si ñu sàcc jaay ko jaay ko yenn ñi ñenn ñi yooyu la ñu récupéré yenn entreprise mais Farba Ngom dix kër vingt kër mais garaawul jàmm jar na ko mais boo leen fi nekkee di jéem a di leen menacé mais ñoom tamit ban choix la ñu am boo leen ne Macky Sall boo bàyyee nguur bi rëbës lañ la yóbbu même boo demee France làqatu lañ la yóbbu CPI nga wax ko général Moussa dama lay tëj Amady Diouf dama lay tëj mais ñoom tam ban choix la am mais man nag li ma wax c'est clair bu Macky Sall bàyyee waaye nag bu Macky dëgëree bopp

dafa mel dafa bëgg toog quoi parce que muy naan Pa Assane mais ñoom nañu réglé seen candidature te bàyyi ma ak sama candidature <laughs> loolu mooy problème te Pape Alé Niang nee nañu Marième Faye Sall moo ne ko ak Mansour Faye ñoom Mansour Faye lan la ñuy tiit seen milliard jël leen jël leen seen milliard duñ leen topp waaye bu ñu dëgëree bopp du ñu am ndam suñu kaw yàgg yàgg senegal yi dañuy ñooy ñooy am ndaw seen kaw Alpha Condé dafa forcé waaye gis ngeen ba mu forcé un an rek la ci teg daanu gis nga Alpha Condé ba mu forcé un an la ci teg daanu kon Macky Sall yow même boo forcé yow général bu Fall Amadou Diouf ngeen rey ay sénégalais yu bëri ngeen tëj Sonko ngeen sàcc ngeen ngeen ngeen yàq yi élection amul mais mais loolu loolu pourquoi loolu loolu loolu ngeen yaakaar ne da ngeen ciy am un an deux ans trois ans ñu rey la wala ñu def le coup d'état Macky Sall na réfléchir ñu tamit la fin justifie les moyens xam man la moom ma intéressé Sonko président yéen loolu jarul leen wax ah, xaaral ma laaj leen loolu Mbaye Dieng Sonko président jarul la ñu baal Macky Sall ñu defal leen amnistie jaru ko ngay dugg Sénégal nu mu la neexee. Sénégal naat xale yi ñu am ay hôpital mu mel ne Libye mu meloon mel ne Dubaï pétrole bi ah li ñuy wax ci pétrole bi ak gaz bu dee dëgg la mais ñëppay am kër ñëppay faju normal ñëppay am électricité te électricité mooy mooy réew mais courant bi coupé chaque jour loolu jaru ko mais xam nga man la laa la laa bëgg man dama bëgg booy xeex da ngay xeex léegi kii nee na amul amnistie xam man la bëgg jar na ko wala jaru ko Sonko président jar na ko kay fam si Sonko président jarul leen ko man de jaral na ma ko mais Macky Sall sénégalais la Mame Mbaye Niang la lu bon am na genn wàllu sénégalais Mamour Diallo sénégalais la Adji Sarr ñun li ñu intéressé mooy abal leen ñu suñu réew man ñun loolu la ñuy xeexaa ah man xeexuma pour rey Macky Sall man man de xeexuma pour rey Macky parce que man matérialiste xeexuma pour rey Macky Sall xeexuma pour nangu Farba Ngom ay immeuble xeexuma pour Adji Sarr yaa ma def lii wala yaa ma def la xam man lan laay xeex abal leen ñu suñu réew la fin justifie les moyens il faut être dans la vie il faut être dans la vie mais di di jéem a séntu leen ba yàqul lépp ñu rey fi Sonko ah ñu rey fi Sonko dëkk bi tàkk guerre civile armée bi jël nguur gi Macky Sall daw loolu. il a fait beaucoup de mal mais et après ñun il fait. fal ñun fait mais fi il encouragé Mali nous sommes coupables affaire nous, du Macky Sall kese eh, affaire du Macky Sall Nous fait. Nous ko affaire nous sommes coupables parce que nous sommes ko Nous nous fal ñun fait. Nous avons fait def lu ans def jox ko pièce noire muy jënd avion bi ñu tàggu ñu seetaan mu ah il ira à Rebeuss avec sa femme ci benn condition rek lay demee Rebeuss mu dëgër bopp Mbaye Dieng mu dëgëree bopp xeex ñu gañe ko foofu lay demee Rebeuss de mais koo gañewul koo mënul jàpp loo ko yóbbu Rebeuss moom moo ñu jàpp fu mu nekk di tëj jàpp suñu numéro 3 domaine dugal ci kaso jigéenu biir mu dugal ci kaso ñun nekk fii di menacer rek menace yoo xam ne jëruñu dara balaa nga koy tëj day fekk nga gañe ko mais ñun xeexuñu kon dañu jéem a xool beneen beneen beneen stratégie kii ne naa dem rëbës <laughs> si paquetage bi ba <laughs> tituré <laughs> man de yéenewu ma Macky loolu billaay wallaay taala yéenewu ko xam man la laa bëgg man la laa xeex nangu sama réew bu dee mën nañu jox suñu réew waa APR bu dee mën nañu jox suñu réew billahi wallahi taala dañ leen di baal barke rasulilaay dañ leen di baal yéen ñii da ngeen di wax nii rek c'est parce que Macky waxagul moo tax mais Macky bu génnoon mu ne saa yi léegi damay négocier jël leen seen réew barke rasulilaay da ngeen di d'accord mais nit ki boo ko tëjee lan ñun lan la ñu yokk Macky Sall bu ñu ko tëjee wala ñu rey ko lan la ñu yokk Farba Ngom bu ñu nangoo ay ay ay këram lan la ñu yokk dara nañ leen bàyyil seen loolu ñun li ñu yor moo ëpp. lan la ñuy nangu xam nga lan la ñuy nangu suuf yu bëri yi ñu jël jox ko tubaab yeeg yooyu yooyu moom dañ koy nangu moom mais ku ci nekk ay ñaari immeuble ay R plus cinq ay mais loolu day dara mais xam nga lan moo lan moo lan moo jar a nangu hectare ay hectare comme lii gaa yi bëgg def six mille hectares nga bëgg jël yoof yooyu moom duñ ko nangu moom yooyu moom dañ koy récupérer loolu tax li buy xeex mais ay benn immeuble fii benn kër fii bi dix kër fii mais loolu day ak ak dix milliards yu ñu sàcc fii dugal ci ay compte étranger mais loolu du tus loolu nga sauver réew jar na ko man foofu laay waxee ñoom Mame Mbaye Niang ne seen xel dal di Diouf procureur yéen xanaa gisu leen lii waa ji def tey ñëpp di ko tagg dictateur la boo xam ne man ba léegi pour man dictateur la muy Kagame xanaa gisu leen li mu def xanaa gisu leen li Kagame def il faut que nga baale pour mën a egg fenn tey Rwanda la ñuy cité en exemple pays bu gën gën a développé en Afrique gën a set lu tax parce que huit cent mille personnes nañu rey te ñu ci bëri ay jaasi lañ leen góor ay ay ay euh, si Kagame tutsi la outil rey leen parce que ñoom ñoo daaneel président Aberimana avion ñoo ko daaneel parce que parce que Kagame rebelle la woon rebelle ñu woo leen ci jàmm. ñu dugg ci réew mi li njëkk def mooy ñu daanal avion président Ababacar Rimana ci leen utu yi nag mer ne mbóot yi rajo Milkolin ñu ne mbóot yi dama leen ngeen rey mbóot yi gars yi nag dem di di jàpp tutsi di rey ak ak collaborateur uti di gor di gor di jam di gor di tal di violé lu ne ñu def ba rey ci huit cent mille di violé nañu def na ñu ne taal kër rey torture yu garaaw mais Kagame ba mu ñëwee xam ne outils yi ñoom ñooy ñoom ñooy majoritaire ci dëkk bi te loo jàpp ñëpp nga tëj ci kaso bi wala nga fayantoo ak ñoom kon dëkk dëkk bi dara du fa des déjà Rwanda 3 millions la ñun xaw ma 2 millions d'habitants xaw ma 600 habitants ci bëri bu fayantoo ñoom lan mooy des ci dëkk ba kan mooy développé réew da leen woo mu ne leen dañ leen di yóbbu ci ay camp ñu réformer leen ku ci nekk nag dañuy ngay ñëw nga wax li nga def. ñii naan la rey naa quarante personnes ñi naan la violé naa ñu téye leen fa deux mois trois mois réformer leen bàyyi leen ñu dem baal leen amnistie topp ñu kenn looloo tax tey Rwanda mel ni mu sëgg mais rey nit moo gën a grave huit cent mille personnes mais ay milliards ngeen may waxal waaw kay non s'il déclenche la guerre civile na non non loolu moom c'est autre chose mais ah, man li may wax est-ce que dina am parce que Macky Sall vraiment nit la boo xam ne kenn mënu ko comprendre s'il déclenche la guerre civile moom mais foofu moom ñëppay perte moom day perte ñëpp perte mais bu décidé sëriñ yi wax ak moom ci suuf ne ko bàyyi mu bàyyi mais bu boobaa dañ koy jox ay garantie même bu boobaa billahi wallahi taala man li may proposé mais duñ ko laal même këram bi nga xam ne Mermoz la nekk dañ koy bàyyi mu dugg di génn gisoo Ablaye Wade ba ko Abdou Diouf joxe nguur gi dafa ko baal lépp mais Abdou Diouf da daan tëj Ablaye Wade mais Abdou Diouf daf ko Ablaye Wade dafa c'est-à-dire yéen ay xale ngeen quoi loolu day fekk nit ki dem parce que loolu mooy nit gis nga xam la mooy nit nit ku dul juum amul Macky Sall nit rek la dafa réer mais bu demee ba yàlla delloo ci xelam mu ñëw mu tuub comme Idrissa Seck li mu def yéen ngeen koy xalab ba léegi man Idrissa Seck dama ko ne guerrier nga vrai patriote nga dem sama live dama ne mayal leen ma ko ay kër man man man xam la moo am importance nit ki daan def mais moment de vérité nga jël décision bi baax loolu la Idrissa Seck def Idrissa Seck li mu waxoon yëpp man bàyyi naa ko fàtte naa ko parce que ba mu demee ba ne Sonko dafa war a bokk Macky doo bokk loolu guerrier moo koy def c'est vrai que nag wax naa ay wax yu ñu wax ci suuf voilà Abdou Diouf li mu def Ablaye Wade moo moom waaye Abdou Diouf sonal na sàcc ay élection tëj ko fi mais Ablaye Wade dafa bàyyi voilà gars sama batterie bi ngi waaj jeex xaar ma sauver laay ko waaw mais ñoo far mais mais daal nañu am toujours espoir le 8 mai bu ñëwee xam naa tamit dañ koy dàqaat nañu am espoir que ne que Macky Sall nee na d'ici quelque temps day dina annoncé du annoncé tous du ko annoncé <laughs> mu ne Paa Assane Gueye yàggatul <laughs> Macky Sall ne yàggatul dina annoncé du annoncé tous du ko annoncé ndax keroog laay tous du ko annoncé fii lay ak cache mais nag am naa yaakaar gars yi ba suba incha allah merci. eh Facebook ñi ma war a jox incha allah dinaa.